mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci biir li Limametti di leen remercier encore une fois ki top bu ngeen ñu top comme à chaque fois ñu ñëw ak yéen ci xibaar yi gën a fës xibaar yi ñu koy dooreel ci alxayri boobu jib ca animatrice boobu di Alima Ndione séeréer bu nice daal am borom kër ci samedi bi ki ko takk nag di Cheikh Abraham mbay moo ko daal di jël ab ñetteelu soxna Alima Ndione nag moo daal di fasal xibaar yi ci page Facebook am te muy jéggalu nag ci yéex a fasal bi ko fasal ndax mbir yi daa bette lool ñi nga xamante ne ñoo di ay wujjam daal dinañu def sañse daal di koy ñëw jàppale ci bis boobule bu ñu jigéen nag ci loolu nag kii di waajuru Alima Ndione bu jigéen daal dinay génn génnam bu njëkk di gërëm ki nga xamante ne moo di doomam Alima Ndione da koy ñaanal sëy bu barke beneen alxeeri daal dinay jib ci ki nga xamante ne moo di Cheikh Niass di doom ci Sidi Lamine Niass gannaaw bu mu takkee woon ab awa ci diiru un an daal jëlaat ñaareel kii ngeen di gis nag ci écran bi ñun waa Limametti nag dinañ leen ko toppal ba indi leen ci ay leeral yu gën a leer gannaaw série bu bees bi di Virginie di def ay polémique nag ki nga xamante ne moo di Pathé Sène daal dinay génn def ay critique am ci série yi di daw ba ci mbetteel moom série ngañ nag daal dina koy tontu moom Pathé Sène lam ci wax rek mooy que ni série mbetteel boobu seen technique bi dara baaxu ci kii di série ngañ nag daal dinay mer ba futtu daal di tëg ko ki nga xamante ne moo di Pathé Sène ndax nee na balaa muy wax dafa war a xam ñoom ñaata la ñu dépensé ba yegsi fi ñu yegsi nii te moom Pathé seen sax ban expérience la am ci li nga xamante ne moo di aar bi booy xool sax ka gën tuuti ci mbetteel moo ko ëpp ëpp expérience kii di parte seen da koo bett lool waaye moom nag moo ngi wax ne que parte seen dafa war a xam ne que ñoom ñaar bokkuñu école te récréation boolewulee nga xamante ne dañuy jëfandikoo chicha fii ci Sénégal nañu jéem rek nañ ko bàyyi ndax dañu koy tere kii di ministre du commerce ak naataangoom boobu yore wàllu wér yaram bi ndax dinañu signé lii ba noppi donte sax ndaw yu bëri dañ koy jëfandikoo ba ci ay xale yu jigéen chicha nekk na loo xamante ne day indi ay jàngaro yu bëri ba sax wàllante ay feebar noonee nag nee nañ képp ku ñu gis nga ko fiy jaay wala nga ko fiy jëfandikoo dina am nag ay daan yu sévère yu nga xamante ne dañ ko teg sa kaw mbokki internet yi leen leen indiloon tey seen revue de presse di leen jox dig daje ci yeneen xibaar di leen wax nag bu leen fàttee abonné suñu chaîne youtube limametti point com ngeen bësaale cloche de notification bu leen di permettre ngeen am information yi fi ngeen mënti toll